def kem kàttalam ba jëlee club bi ci national 2 bi yóbbu ko ci national 1 bi ci leex ànd ci ak Ibrahima Diallo. gannaaw bu ñu ko falee def ko président UCAS FC Boubacar Biaye mi nekk tam président ORCAV bu Sédhiou fësal na ay jéego yu mu nar a def rawatina jëlee équipe bile ci national 2 yóbbu ko ci national 1. ci objectif mooy UCAS mën a dem ci kanam ça veut dire que ñun ñu ngi national 2 ñu am yaakaar na xëy fii la déwén sax pourquoi pas ñu nekk tudd na tam ay réforme yu mu nar a amal ci génn taxawal club bile. il faut que ñu réformer suñu taxi d'abord ñu organiser wu ñu organiser ci taxi yi nga xam ne parce que moom mooy une identité. fexe ba club bi la am benn oto nekk na tam lu ko yitteel suñu xamee ne ci championnat bu daaw bi ci wàllu transport nañu benn bor bu benn million ak lu ëpp téeméeri junni bi nga xamante ni faw ñu fay ko. ñu def boo xam ne war nañu mën a am ay loo xam ne comme ay oto ay bus que transport mooy suñu problème bu gën a rëy. Boubacar Biaye mi tàllal loxo ñëpp xamle na tam lii di tàggat ak mbirum bonne gouvernance nekk na lu nar bokk ci programme am. comme dee dox il faut aussi ñoom ñu organiser organisé wu donc ñun jël nañ engagement aussi pour jël formation ñooñu ñu ñaan yàlla nag vraiment mu bàyyi fi bu bañ fi eh, bàyyi fi may may ñu ak wér la incha allah xam naa ne euh, chaque année bu ñu defee seen assemblée générale dinañ rendre compte que am na yokkute boo xam ne indi nañ ko fi bari woon nañu ñu ñëwoon bokk ci assemblée générale UCAS FC bile gannaaw fukki at amul benn renouvellement si ndaje bi nga xamante ni tam jotoon nañu sargal kii di président sortan bi di Fodé Boukary Daaba mi ñu xamee ci tànkanto si jéego yu mu jot a def ci wàllu football alors joueurs yu ndaw yi bien boo ñu waajal ndax nag am na fii ay recruteurs yu club euh, Villarreal bu Espagne yuy ñëw sa stade Alassane Djigo euh, ngir nag mën a recruter lu toll ci deux cent jeunes. waaw ah, loolu nag jàppale tàmbali nañ ko sax ni ki démb ci diiru euh, nag ñeenti fan kon ay ndaw ci seen at toll ci fukki at juróom-ñaar ba fukki at ak juróom-ñett ñoom ñu ne nag ñoo essayé convaincre ay recruteurs yu jógee foofu ci nag diwaanu Espagne ci club bi di Villarreal li ni mel nag daanaka ñoo ngi koy amale foofu ci stade Alassane Djigo ak stade bu Mbao en ébét bi daal mooy nag def seen kéem kattan ba nag euh, xool nu ñuy enrôler ay ndaw yoo xam ne dinañ gën a mën a nag euh, réussir lii di seen rêve dañ ci ànd ak ak Assane moom mi nga xam ne moom moo initié boobule programme. deux matchs le matin et quatre le soir waaw procédure nan la koy toppee quoi ba le 19 incha allah. waaw c'est pour quatre jours de tournoi et cinquième jour bi mooy nekk match de gala bi à Thiès. ça fait plus de ans adduna bi fu nekk ñu ngi fay dem. di xool ay talent parce que xam nañu le futur ci football c'est ici en Afrique jot nañ dem Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali te franchement depuis ñu ñëw fii nee nañ ñu ngi saluer déjà organisation bi parce que ci peu de jours lañ ko def exactement li leen fi njëkk a indi mooy ñëw détecter des talents après une fois ñu xool talent yooyu noonu deuxième étape bi mooy nekk la formation te kii di formation di entraîneur déjà di joueur def fi formation bi déjà e doog a implanté fii seen académie de foot pour que tout le monde Sénégal gi yëpp ku ci nekk mën ci gis sa en tout cas gannaaw nag ba ñu jógee ci boobu les stages initiateurs yi ñoom seen bébét mooy def seen kéem kattan ba taxawal ab académie fi def tamit euh, ay partenariats yoo xam ne dina nag mën a permettre ay club yu mel ni Real Madrid FC Barcelone ak yeneen club nekk foofu sa diwaan Espagne mën a nag gën a yaatal seenu ay mbir fii ci Sénégal lu yàggatul dara sax ci weerum janvier Valence moom dina nag euh, amal ab tournoi bu mel bu ni mel ngir nag ci di rukk euh, weer ngir mun a détecter yeneen talent ñoo teewlu ci ba tey euh, kii di Assane Bey mi nga xam ne moo initié bi le dafa am court terme ak long terme court terme bi avant ñoom ñu fi jóge déjà structure bi lañ koy teg fii au Sénégal benn structure la boo xam ça parle de sport étude événementiel déjà